muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla day dindi bakkaar day joxe wërsëg day rafetal kanam day yaatal bàmmeel day tax nga day am bari tax sopp nit asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki Touba dal leen ak jàmm fii ci seen boutique MSGF di boutique maam Serigne jaaro Fall nekk fële ca tuuba boutique boo xam ne day yëngu ci wàllum bagage électronique matériel ak lépp loo xam ne accessoire la jëm ci portable lépp dañu koy jaay ay bagage su MP ay li nga xam si ne mooy bultuuf ay protège portable façon boo ci bëgg rek am na fa boo leen ñëwee ca boutique ba di ngeen fa fekk sama waa ji ñu naan ko Serigne Fallou Fall yow mi nga xam si ne da ngay jënd di jaaywaat maanaam yow miy jënd prix en gros boo ñëwee dina la jaay ay bagage yu xéewale boo xam ne si ni da nga dem jaayawaat ko ci ay prix yu njege ay prix yoo xamante si ni prix yu adorable lay doon kon sama waa ji dafa mën a liggéey te li def xarañ na mën na ko te tamit boo leen ci yittee set na sell na gëm na boppam mën na liggéey kon yow mi nga xam si ne nii da ngay jëndi ay prix en gros di jaayawaat dawal gaaw nga si fekk fii la nga fekk foofu noonu ca marché ocas yow mi bëgg a jokkoo ak ñoom mën nga woote ci numéro bi di 77 340 62 99 wala 78 636 38 21 wala 76 498 90 10 kon nag yéen ñi nga xamante se ni li ngeen di jënd di jaaywaat daw leen gaaw foofu noonu ci seen boutique maam Serigne Diarra Fall ngeen fekk ko Serigne Fallou Fall mu jaay leen ci bagage yi bagage yu xéewale xéewale ba boo leen koy jaaywaat di ngeen ko jaay ci ay prix yu xéewale prix yu adorable kon sama waa ji Serigne Fallou jàmm ci yow nee naa la yow loo jaayut lekk baaxut kon sama gaay yi kon boutique baa ngi noonu daw leen gaaw ngeen seet leen ci numéro yooyu noonu ak waa boutique maam Serigne Diarra Fall seeni bagage xéewale na njege na te li ñuy jaayu lekk baaxut fekk semaine bii di yeex suba la commencé bu ay question bi dugg balaa ajuma ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla day dindi bakkaar day joxe wërsëg day rafetal kanam day yaatal bàmmeel day tax nga day am bari tax a sopp nit na ko ñëpp def balaa vendredi 6666 fois ku jeexal nga def ci yonent julli ci yonent bi sallallahu ala muhammadin wa sallim wala allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa wala salaatu bi nga man na nga def nombre boobu balaa ajjuma bi la si bu ndajee ñu joxaat leen ko ku ko def di nga for dog insha allah 6666 salaatu ala nabi 6666 la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi boo ko def baax na ku mën a ndoowul lépp ci même heure même jotaay bi xam nga 6666 boo defee 1111 par jour 6 jours yi mooy loolu soo ko mënewul noonu ndax danga nga am liggéey nga seet noo ko tase rek ba fex ba liggéey ko. ña waaw bo même boo amee ngant. julli ci bi amul ngant. tudd yàlla amul ngant yurul ci yenn yi te yooyu ci wérdi sëriñ yi la ne. salaatu fàtte li muy réer dama man koo jang, jawaratul gant, la seex wax beneen salaat bu mën a doon mën ko koo jàng ci biir ngant. maanaam nga xam ne ma nekk man koo def fii ma nekk dama am règle man ko ko def. même jàng alxuraan lu mel muslu ko def. nga waaw julli. doo naafila. nga toog ci der doo war Kaaba euh, Kaaba ga. Ah. ak der bi der bi waaw deru julli waaye mooy loo julli rek da ngay teg yooyu foofu. ñu mm-hmm. am na sax ko ciy laaj même bu euh, yére yi nga xam ne bi nga amee ngant da nga ko doon sol. Mm-hmm. da ngay koo xam ne wax ni comme règle bi jeex dama ko war a fóot doo koo solaat. Mm-hmm. mooy ci kaw nga xam ni sa ngant loolu daf ko laal. mais su dee sa deret règle musul laal sa sér bi ngay woto même deret bi si musu koo laal. saa yu la neex mën ko sol dem julli ci su dee laaloon na sax may nañ la opportunité la moy fi mu laal fi mu taq nga dem xaj ko moy moy moy moy fot ko fot bu yem bo waxe batu xaj batu wolof la manam ñom ñom ñoom ci amir nga xam degul yoy waaw nga fot ko fi tas bi nek man ko sol te julli ci su nak sobe bi abdassis laal na yére bi mais set xamoo fan la ci doo ko mën a sol julli dañ ne dama nga fóot yére bi yëpp su dee xam nga ab parti bi mu nekk dindi ko moom kese te sol ko te julli xaw ma parti bi mais laal na ma demal fóot yére bi yëpp loolu lañ wax noonu kon nak loolu moy message bi ci kooku waye tàggu ko mom ak julli yonent bi amul loolu mhm. barakallah ñuy soñu ñëpp rek ci dog yi nga xam señ bi joxe na ko ñëpp def ko rek té daal di ko ci fasalé fasalé ci nak chaîne bi ñu nit dina leen fasalé inshallah ñu ñaanal leen te di wax ni message des internautes jàllul ndax temps bi moko matalé wul ñu ngi jaajëfal ñëpp comme ni señ bi ibé woon rek ñu ngi nuyu ñëpp wuñu kenn di wax ni rek ñi nga xam def nañu système participatif bi mais aussi ñi nga xam également woté nañu ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax ni yalla yalla defal defar ci barke yeneen ci biir barkala wax naa la keroog soxna si xarit Diop la xaw ma waaw jàll lañ leen ko kon baax na mu waaw jërëjëf yàlla defal na dàmm taw feex sutura barkala Abdou Assis jërëjëf asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki Touba dal leen ak jàmm fii ci seen boutique MSGF di boutique maam Serigne Diaro Fall nekk fële ca Touba boutique boo xam ne day yëngu ci wàllum bagage électronique matériel ak lépp loo xam accessoire la jëm ci portable lépp dañu koy jaay ay bagaasu imp ay li nga xam si ne mooy bultuuf ay protège portable façon boo ci bëgg rek am na fa boo leen ñëwee ca boutique ba di fa fekk sama waa ji ñu naan ko Serigne Fallou Fall yow mi nga xam si ne da jënd di jaayawaat maanaam yow miy jënd prix en gros boo dina la jaay ay bagages yu xéewale boo xam ne si ni da nga dem jaayawaat ko ci ay prix yu njege ay prix yoo xamante si ni prix yu adorable lay doon kon sama waa ji dafa mën a liggéey te li def xarañ na mën na ko te tamit boole na ci yitte set na sell na gëm na boppam mën na liggéey kon yow mi nga xam se ne nii da jëndi ay prix en gros di jaayawaat dawal gaaw nga si fekk fii la nga fekk foofa noonu ca marché Ocass yow mi bëgg a jokkoo ak ñoom mën nga woote ci numéro bi di 77 340 62 99 wala 78 636 38 21 wala 76 498 90 10 kon nag yéen yi nga xamante se ni li di jënd di jaaywaat daw leen gaaw foofu noonu ci seen boutique maam Serigne Diarra Fall ngeen fekk ko Serigne mu jaay leen ci bagage yi bagage yu xéewale xéewale ba boo leen koy jaaywaat di ngeen ko jaay ci ay prix yu xéewale prix yu adorable kon sama waa ji Serigne Fallou jàmm ci yow nee naa la yow loo jaayut rek baaxut kon sama gars yi kon boutique baa ngi noonu daw leen gaaw ngeen seet leen ci numéro yooyu noonu ak waa boutique maam Serigne Diarra Fall seeni bagage xéewale na njege na te lu ñuy jaayul lekk baaxut